nekkul consensus bu ñu am lañ bëggoon moo doon par exemple njëg li wàññi six mille cinq cent saaku farine bi pour ñu mën a wàññi juróom dërëm ñun loolu mooy suñu revendication waaye na su état ne man nag quatre mille laa mën a yem ñu ni ko nangul nañ la ko parce que aussi duñ nekk di bloquer sa politique bi nga wàññi prix parce que ñu tam ay consommateur lañ Sénégal lu Ndakaaru dañoo bëggoon nag balaa ngay appliquer prix yi dafa am lu ñuy wax la ñu def fi Ndakaaru dafa am lu ñuy wax conseil régionaux yëpp dañ ko war a def ba mën a xam dëkk bu nekk prix bi bu mu war a nekk. wàññi ngeen juróomi dërëm wàññi ngeen farine bi 4000 mais su ngeen ñu boolewul ay accompagnement mën naa leen biral ni